rek daanaka. kéemul euh, si lenn di ko jaale euh, culture bi yëpp di ko jaale ñi nga xamante ni ñooy waa groupe euh, Futurs Médias di ko jaale aussi ki nga xamante ni mooy Kouthia daf nekkoon mhm. mën nañu wax ne doomu ndeyam. Mhm. nekk ki nga xamante ni foo gis gis fi ki nga xamante ne mhm. mooy Ndiaye. merci ma ci rubrique actualité bi donc euh, man it damay jaale kooku di Ndiaye di doon def liggéey bu am solo euh, ñëpp doon ko suivre euh, à travers Kouthia Show bi ñëpp bu ko xamee je pense que Kouthia moo tax ñu xam mhm. ko di ko jaale Kouthia ak képp kuy nekk ca groupe Futur Média Mohamed Rasoul Thiam yaa ngi fii ci plateau bi yaay suñu ganu tey ñu dalal la am mbégte dalal fii ci plateau sans fit ñu bàyyi la nga nu yoon nuyoonteeg mbokk auditeurs yi lay déglu. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu di leen ziar. Mm-hmm. di leen di rafetlu invitation bi waaw di leen sant di leen gërëm. di mm-hmm. nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal kii bi. Mm-hmm. liggéey bi waaw. voilà nga ñëw ci rubrique actualité bu dee am na loo mën a wax ci njaay. Euh, mi nga xam ne ñëpp tey bu ko xamee Kouthia Show moo am moo tax mu doon def foofu liggéey boo xam ne am na solo divertir na ay nit ñu bëri à travers son humour peut-être un petit mot sinon ñu jàll ci suñu thème. waaw waaw Ndiaye moom li ñuy wax rek yal na ko yàlla yërëm. Mhm. instant yii rek moom moo si des. Mhm. ko yàlla. Mhm. yàlla xare ko àjjana. waaw comme que mu ngi doon bégal sénégalais yi nag. waaw yal na ko yàlla bégal foofu rek. amiin am na solo merci Rasoul euh, Rasoul Thiam yow ngay xale yaa créé li nga xam ne moo di rasul création euh, di def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la laataa ñu ñëw ci li nga xam ne yow moom ngay def yow nan nga duggee ci euh, liggéey bi ak lan moo tax nga dugg ci danga nga bàyyi jàng wala nu mu demee. waaw affaire bi moom mën naa ne ba ma si duggee yàgg na yàggul. Mhm. parce que dama doon jàng après bi ma demee ba am entrée laa xam ne kiiwu quoi mënu mënu mënutuma continuer quoi après ma mm-hmm. daal di bàyyi bi ma bàyyi après sama grand frère daal may dugal métier mm-hmm. ma dugalee métier mu dugal jàng jox ma kii sàmm sàmm jàmm laa xam ne mm-hmm. woon kiiwu quoi mënu mënutuma continuer quoi après ma daal di bàyyi bi ma bàyyi après sama grand frère bi daal may dugal métier mhm. ma dugalee métier mu dugal ma jox ma kii nii Sam Sam Thiam moom moo ma yore woon mu daan jàngal métier après ñu dem dem ba ma ba ma kii mu mu daal may ber defar naka la ñuy defaree pochette bi ma bere léegi mooy defar sama bopp ñun mhm. daanaka sax ay pochette laa jàng mais ay sàll ñëw jàngal mhm. mais euh, moom lu bi naka la demee lan la doon demee lan la doon jàngal exactement moom ay pochette la ma daan ay commande yi ko doon commandé ngeen di koy def di ko liggéeyal waaw muy dem mhm. dëkk yu nekk daan daanañ ko livrer ay kii ay commande d'accord eh, laataa nga dugg ci li nga xamante moom mooy euh, liggéey bi à fond dama nga dem di liggéey foofu wala na la affaire na daal wala non man kay daaw ma ko woon kii sama mag moom moom kii la quoi cordonnier la mm-hmm. moom ay daal lay liggéey léegi nag bi ma bi ma bàyyee dama bàyyi rek mu ne ma doo toog si kër gi da ngay dem liggéey. mais mais avant avant bàyyi bi da nga doon xaw a liggéey tuuti ci ci affaire bi wala wala wala da ngaa bàyyi rek mu la euh, demal si bi. waaw damaa bàyyi rek mu mu embarqué ma kay. lan moo la loo jàng tam rasul wala yaa bëggul jàng. non damaa kii rek damaa xam ne xam nga nit ku si nekk xam nga sa bopp. lan <laughs> la quoi. d'accord yow rasul création depuis kañ nga ko taxawal. rasul création bi ma ko taxawalee. daanaka xanaa bi ma bi ma bi ma bi ma jógee sama patron bi ma doon jàngal métier. Mhm. la la toog ma ne pourquoi pas ma ma ma am sama tur bopp mhm. xamante ni man man man maa defar sama bopp. Mhm. waaw loolu la daal affaire bi daal moom. kiiwul kon actuellement lan ngay defar sac. waaw instant yii nii moom damay defar sac même façon saag boo ma jox mën naa la ko liggéeyal. Mhm. façon modèle bu ne. saag yi expliquer ñu un peu euh, saag yi yow noo ko noo ko defaree ban matière nga utiliser. waaw ak ñaata temps la lay jox pour nga def benn saag. simili-cuir la quoi. simili-cuir la te simili-cuir moom moo gën a moins cher que cuir. Mhm. waaw ak ak kii bi nii tisi bi nii léegi yooyu noonu mm. après dem jënd matériel yi quelque yu sew sewaan yooyu noonu après nga kii waaw commencé mm. mais mais pourquoi nga nga choisir ne yow sañ nga defal alors que am na yenn yoo xamante ne daal la moo neex a jaay jigéen ñi dafa mel ne saako jigéen ñi surtout ñi nga xam ne saak affaire mais pourquoi ah hmm. damay damay defar benn sac boo xamante si nii man après damay toogaat di xoolaat maanaam est-ce que man man la lii hmm. man maa ko defar quoi hmm. est-ce que man la quoi même sama grand bi ay saa ma koy defar benn sakos nii su su xëysee su indee sakos bi damay toog di xoolaat affaire bi di ko xoolaat mu ne ma yow léegi nga dof quoi yow da ngay def loo xamante si nii jàll na après nga nekkaat di si kii waat quoi di ko xoolaat kii mm. fekk yow la quoi. mais man man li ma jaaxal ba léegi booy yow yow affaire prochaine nga nga nga nga nga commencé. Mm. donc mais na def ba inspiré yu defar saag yi. parce que saag yi saag yi bon xam naa live bi léegi nii di mën a gis en direct si suñu page euh, Facebook. mais lii di nga inspiré nu sac bi ni nga ko defee nii je pense que lii moom mhm. euh, kuñ ne lii jàngoo ko dalay dalay jaaxal parce que c'est c'est mhm. dafa artistique aussi en même dafa dafa nekk dafa nekk à la mode donc euh, fan nga fan fan la inspiré ndax da ngay dugg ci ci ay tuto youtube yi di seetaan ni ñuy defee sac wala boog juste yow da euh, benn jour nga ñëw nii rek inspiré ci benn affaire ne xaar ma créé benn sac parce que ni mu demee nii moom instant yi moom macha allah ko mën a gis waaw loolu la bi xam ñun fi ñu nekk ne daanaka marché la quoi. Hmm. dafa am suñuy ganaar yoo xamante ni ñoom ku si nekk da nga jógee dëkk ñëw foofu noonu. Hmm. di liggéey quoi ay d'art ñii di liggéey ay dàll ñii liggéey ay saak ñii liggéey ay poset ay poset xam nga liggéey ay yére ñii waaw mooy loolu ñii di ñëw ay yére ay affaire yooyu noonu. Hmm. léegi man bi ma ñëwee ma ne xaaral ma kam ka kam ka ay kii laa jàng mais man ay saak saak moom dafa ma yàggoon a neex. fa dëgg yàlla. dafa ma yàgg dama daan toog mii di xalaat naan lii nu ñu koy defaree affaire yi affaire bi xam na maa jaaxal quoi mais lu lu lu ma loo xamante ni daal moom moom man jànguma ko daal en tout hmm. daal parce que dama daan gis ay gannaaw foofu noonu ñu daan defar ay ay kii mooy sac en main hmm. jigéen ñi yooyu noonu dama ko daan gis quoi après ma ne xaar mooy mooy ji ma defar defar benn benn ba xam lu may jox quoi léegi nag bi ma demee ba si yàgg na laa laa ne xaaral ma ji ma commencé defar may daggal samay bopp samay modèle lu gën a difficile nag moom mooy loolu quoi. yaa trouvé modèle bi sa bopp waaw sama modèle la waaw. dagg bi dagg bi est-ce que est-ce que jafe woo ci ci commencement bi. Euh, pour nga defar saak parce que. saa yi da ngay da ngay nit daf lay commandé benn saak. lu gën a difficile nag nga dem mën nga ko. yaa trouvé modèle bi dagg ma si sama yaakaar ne baax na de. nga dem dagg bi dagg bi est-ce que jafe woo ci ci commencement bi. Euh, pour nga defar saak parce que saa yi dafa faussé quoi mesure bu baaxul. Hmm. da ngay dem jëndaat nga ñëwaat defaraat. ba mu normal nga door a jox sa mm-hmm. noonu la ñuy def di def di def instant yii nii moo lay dama koy def su ma koy liggéey comme mën naa gëm sax di ko defal moom su ma. léegi ñaata temps la lay jël pour nga liggéey benn saak dina yàgg. ba mu a jox sa client pour benn saak moom. noonu la ñuy di def di def instant yii nii moo lay dama koy def su ma ma. léegi ñaata temps la lay jël genre modèle yi ñaata temps. waaw comme comme bii nii comme genre modèle yi nii mën jël journée xaaj. benn sac benn sac par jour benn sac benn sac ah lii c'est compliqué ah. <laughs> yombul <laughs> travail artistique la mais mm-hmm. mun nañ comprendre ah, mais Rasoul yow euh, li yan matière ngay utiliser pour nga liggéey sac parce que gis naa lii day mel ni wax la. Mm-hmm. mais wax aar yi ak cuir euh, produit yi ngay utiliser Sénégal lay jóge wala jógewul Sénégal. waaw produit yi nag c'est ñi ñi jaay kii ñoom dañ koy importer suñ ko importer bu ñëwee fii nii. comme maanaam comme comme tissu yi la rek. Mm-hmm. mais am na tissu yoo xamante ni fii lañ koy ràbbee. Mm-hmm. dañ ma koy indil man ma man ba xam ñu ñu laaj ma ba xam yow man nga si defar saak ma ne la waaw mën naa la si defar saak ñu jox ma modèle. Mm-hmm. ma defaral leen saak li leen am na kii yu bëri ñoo xamante ni man dama leen liggéeyal. waaw mais pour kii bi nii tamit euh, simili kii bi nii tamit noonu la demee ñoom tamit dañ koy importer dugal ko si conteneur yi mu ñëw après ñoom ñoo koy teg seen i seen i magasin léegi ñun. dañuy dem jënd lu ñu soxla après ñu ñëw comme gaa yi ñu koy defee la. mais nga choisir semi cuir parce que je pense cuir 100 pour cent am na. comme nga dem. Euh, marché fi naar yi nekk jënd der bi foofu directement ñëw mm-hmm. euh, defaraat ko wala wala bii dafa gën a yomb pour liggéey bi gën a gaaw parce que boo demee si euh, mm-hmm. naar yi fi ñu nekk der boobu il faut nga jaar ko xoosaat ko mm-hmm. defaat ko ba mu gën a nooy ngir mën a liggéey wala bii dafa nekk du pare rek kan boo ne ñëw rek dem directement ci liggéey bi pourquoi demoo jënd 100 pour cent cent pour cent cuivre bi waaw parce que xama xama nit ñi moom lu ñu lay commandé rek yow loolu mu mun defar bu fekkee comme yow ñëw nga nga dema man saag bu mel nii laa bëggoon en cuir mën naa dem jënd cuir bi ñu defaral loxo mais cuir yi dañoo dañoo dañoo wute quoi. Hmm. mais sama saar gi nga xamante ne ñu xamuñu lan bu ñu ñëwee ne sac en cuir la ba ngeen koy jaaree bii. Hmm. waaw waaw te bii te na ñoo xam ne noonu la ñuy def semi cuir la mais xàmmeewuñ xàmmeewuñ cuir ak lu doonul cuir. Hmm. dañuy ñëw ne la sac cuir laa bëgg yow dañ man dama lay laaj yow est-ce que xam nga cuir bu fekkee xam nga cuir ma nañ dem ma wax la prix cuir bi. bu fekkee su ma la waxee prix cuir bi yow di xam cuir ak lu doonul cuir boo téyee cuir bu fekkee yow yow xam nga cuir boo ko téyee di nga xam ne lii cuir la war du cuir mais bu naxaate. voilà. mais mais mais du du ñoo xamante ne ñoo ñu man cuir laa bëgg 100 pour 100. 100 pour 100 cuir est ce que est ce que di ngeen daal commande yooyu wala nit ñi moom essentiel ñu day ñëw rek commande na am na ñoo xam cuir am na ñoo xamante ne nii boo leen defaree lu doon cuir nii bu am na ñoo xam ne boo leen defaree loo xam ne doonu cuir fekk cuir lañ la commandé. Mm-hmm. sa saag lay doon de yaa waay moom de. Mm-hmm. dina dina joxe avant. waaw. dañ lay jox avance. kon client bi du satisfait. bon doo ko jox. la de yow ñëw na commandé la statut nga dem jënd similiture xam na ne yow similiture nga jënd nga defar ko léegi moom bu ñëwee bu ne du ko jël yow xam nga li nga def. Mm-hmm. mais boobu day fekk ci nga xamul xamul euh, loolu similiture waaw parce que yow dangaa jàpp ne jaay xamul fekk xam na après lu ma ko defal am na benn saxos bu ma defal mooy bu El Hadj Diouf bi El Hadj Diouf bi mu doon def yor si kii bi Coupe d'Afrique bi mhm. comme genre boobu noonu defar naa comme bu mel noonu sama benn copain moom ma ko commandé woon quarante cinq mille na ko fay gilet boobu noonu kese mhm. mais boobu cent pour cent cuir laa ko defal mhm. sofuñu ko dara damaa dem si magasin bi direct jënd cuir bi ñëw teg defar samay mesure dagg mu normal mais li ngeen di am si commande yi moo ëpp cuir parce que cuir bi dafa cher c'est pas à la de tout le monde waaw waaw simili kii kiwir bi moom dafa seer moom. ok mm-hmm. parce que euh, foofu noonu. Mm-hmm. yow da ngay soxla mais boo demee foofu noonu ñoom dañuy peese. ñoom luñ to lu lu fooy boobu noonu lu mu toll ñoom noonu lañ la koy jaay duñ ko dagg. mais mais mais du la am par jafe-jafe wala boog mu am noo xamante ne mu am défaut léegi vous êtes obligé ngeen ngeen xaw a lu bëri bëri bëri ci tissu est ce que doo leen fa am euh, am jafe-jafe ngir am der boo xamante ne dañ ko a utiliser à 100 pour cent euh, jaay jaayum pot xaw euh, mm-hmm. ci biir Dakar ak boo leen ko jëndee fa ngeen ko jëndee ji waaw. c'est que ñun ñun fee nañ nag moom ñuy jaay cuir bëri na quoi mm. magasin yi jaay cuir bëri nañ mais ay saa yi nga ñëw soxla benn couleur cuir euh, boo xamante si nii maanaam lu tuuti lu tuuti nga ci soxla de comme maanaam lu toll dimension bii nii mm-hmm. ah ñoom ñu jaay lu toll nii parce que ñoom ñoom ñoom cuir bi ñoom suñ ko daggee ñoom loolu du leen arrangé mm-hmm. parce que mën nañ si perdre donc ñoom feuille bi euh, euh, net ga lañ leen di jaay wala ñu ñu ñu dagg ko ci digg bi carrément nga jël benn xaaj bi. Hmm. mais cuir cuir cuir bi ñuy def. cuir bi ñuy defaree dàll moom bokkul. Hmm. ok liggéey bi ci euh, mat teerul trop trop trop parce que euh, li ma gis nii je pense que bu dee benn di montage benn par benn ñu ngi koy def parce que poche yi ni ñu koy defaree ak li nga xamante ni mooy tëjukaay bi mm-hmm. euh, boucle yi si nekk yu ni mel mm-hmm. yi ngeen utiliser cherul parce que euh, su ma gisee nii ngeen di ngeen ngeen mm-hmm. semblé ko ko semblage lañ koy xama donc ndax machine yi yéen yéen di utiliser ngir ngir ngir def seen liggéey est-ce que est yoo xamante ni daanaka li ngeen ci bëgg dëgg dëgg doon ko am waa pour bu fekkee comme maanaam euh, matière kii yi nga jënd nii accessoire yi nga jënd pour defar si saag bi. Mhm. yooyu moom seer na moom waaw. mais mais machine bi liggéey saag bi moom ci kii noonu. waaw machine bi non machine man man moom damaa am sama machine bopp quoi. Mhm. mais cher na ba ba nga ko jënd. wala boog dañu ko dañu ko jëndal ci jàppale la ko. waaw non man man daanaka man maa maa kii woo sama bopp. yaa finance sa bopp. waaw daanaka waaw. kenn finance mais sama grand frère jàpp na si daal. Mhm, jàpp na si combat bi. Euh, jàpp na si njaay mi ak euh, production li ngay liggéey saag bi jamono ji fu mu tollu ndax yaa ngi ci génn bu baax. waaw man moom maa si génn parce que man sama liggéey si jël sama mhm. waaw damay jël sama temps defar la finition bu rafet. Mhm. voilà ba nga xamante ni yow soo gisee yow. da ngay am jaay du mer voilà. moom am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko. Rewmi FM allo. allo salaamaaleykum maaleykum salaam. waaw alhamdulilah maa ci émission Mouhamed bi. waaw ñu ngi dégg bu baax. allo. ngi lay dégg sëñ bi noo tudd ak foo ñu woowee. maa ngi tudd Abdoul Ba maa ngi wootee Diourbel. Mhm. d'accord da nga bëggoon témoigner. dinaa bëggoon a participer Mouhamed moomu. dañoo xamante mhm. xam naa peut-être sax amee euh, wut xamante noonu. Mhm. allo. ñu ngi lay dégg ñu ngi ñu ngi lay dégg baax. ku am jom la ku am jom la ku am fula ci boppam la ci ku ma gis ku am responsable la. Mm-hmm. ku gëm lu mu doon la xamante ne nag xamante ne yàgg mais ci vision rek laa ko gisee. Mm-hmm. ñu di ko ñaanal yal na ko yàlla euh, sàmm. suturaal ko bëgg egg mu egg fa. te mm-hmm. ko jox benn conseil rek. nit ki boo nekkee yoonu ndaw dafa dafa dafa yéex. bu mu yàqamti dara na def nànk-nànk. na def nànk-nànk te moytu ñaar moytu baatu ginnaaw moytu jigéen mhm. lu yàqu jigéen la ko yàq. <laughs> déet waay wasalaam te incha allah day dem ci kanam fonk ay waajuram. <laughs> Uh-huh. Hmm. yow yow noo gisee liggéey bi muy def ak saag yi nga xam ne moom lay defar. waa liggéey bi ma gis ak saag yi ma gis mu koy defar lii lii dañoo dafa motiver jeunes sénégalais lii dañoo motiver sax ñun ñi bëggoon dugg ci ay gaal di dem ak ay yooyu. Mhm. parce lii lii ku liggéey sa dëkk tey. Mhm. sa dëkk jàppal la rek sa doom yi réew jàppal la rek barki Mouhamed da ngay woote ci da wuy uh, wër ci réew ma. wallaahi dañ ko am fii. Mhm. waa su loolu laa gis nañ ko jàppale te xam ne lii li ñuy uti ji feneen mu ngi fii ci réew mi. Mhm. waaw. mbaa yaa ngi jënd ci saag yi ci bagage yi. Hmm? ma ne mbaa yaa ngi jënd ci bagage yi. dañuy jënd dañ leen ànd ku jënd bu neexee yàlla te dañuy jënd di ci di ci consommé te lii nag lii ñu am nii ñun gis ñu ku ñu dàqale ñoo gëmul suñu bopp rek. ok ñu uti feneen di dem Dubaay dem Chine. Mhm. wallaahi mu ngi fii. te bu ñu ko yoree fu ñu laaj ñu ko. waaw. ok yàlla defal xéewal defal Sibas mhm. Seydina Mohamed. d'accord. ok xéwal merci beaucoup. merci beaucoup euh, Mohamed merci beaucoup. waaw di ko gërëm bu baax nee na Diourbel la dëkk li mu wax am na solo liggéey am na fii Sénégal mais il faut que nga gëm ko euh, lekk ñuy jëm ay Dubaï fu nekk di fa yi ay marchandises. allo Rewmi FM salaamaaleykum. alo waaw sëñ bi na nga def. noo tudd ak foo woowee. Euh, man la Mor grand frère Rasoul Thiam. Mhm. d'accord. waaw euh, maa ngi dëkk Medina. waaw da nga bëggoon participer rek joxe sa témoignage. waaw waaw dama bëggoon participer ci émission bi. waaw ñu ngi lay dégg. Euh, di leen remercier ci invitation bi ngeen defal booy bi quoi. Mhm. parce que jeunes talents yi li lañ soxla. Mhm. kuy def lu rafet ñu jàppale la gunge la. dëgg la. parce que booy bi ni muy def nii moom maanaam xëy na don la bu nekk ci moom quoi mais nag. en fait ñun nekk ay grand frère yi tamit ci métier bi lañ nekk quoi. Uh-huh. waaw lu mu mën la nag. Mm-hmm. macha allah. Mm-hmm. mu la ko waxee noonu ci émission bi noonu la demee quoi. Mm-hmm. waaw ay potes la doon jàng mais yàlla moo ko seet ci saag yi. Uh-huh. waaw mu nekk ci di ci def lu lu doy waar. d'accord. waaw ñu ngi leen di remercier baax a baax nag di ko jaajëfal moom tamit. merci beaucoup. ok jaa ngeen merci Mor. merci beaucoup di ko gërëm bu baax donc mhm. maa ngi doon wax sànq nii comme ni ko Mohamed waxee le fait que ñuy dem di jëli ay bagages extérieurs di indi fii. te pourtant am nañ fi ay talent ay xale yoo xam ne lépp li nga xam ne ñu ngi ko jëlee extérieur ñoom mën nañ ñu ko dàq euh, Mor euh, euh, rasul maa ngi ne Mor sax autant <laughs> pour moi yow nga foog ne tey importation mënul yàq yéen seen liggéey artisan yi li nga xam ne fii fii lañ koy defaree parce que bëri na ñoo xam ne ñi yow ya nga yaa ngi yëngu ci ay sac ak ay pochette am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci ay dàll ñeneen yeneen ak yeneen mm-hmm. boo demee tey Médina da ngay yéemu ci liggéey bi nga xam ne artisan yi ñu ngi ko fay def te pourtant à côté ñu ngi continuer di exporter li nga xam ne extérieur nga foog ne importation moom mënul yàq seen liggéey yéen. waaw mu ngi koy yàq nag bu baax a baax a baax a baax loolu moom dama si insisté waat di ko wax. Mm-hmm. waaw parce que mënoo di defar loo xamante si nii surtout sénégalais yi sax laay wax. Mm-hmm. mënoo di defar loo xamante si nii yow da ngay xam ne lii nii. mënoo ko comme maanaam yow boo demoon di jënd beneen comme maanaam nga ñëwoon di jënd saak. Mm-hmm. man nga gis ne Mouhamed mu ngi defar mu ngi defar mu ngi defar saak mhm. yow après nga dem yow sa mbokk de wala wala koo xam ne si nii jege na la de moom moom du du du ñëw jënd si yow de day dem jënd si si si kii bi si si si ko maanaam ñi importé affaire yi mhm. te sénégalais loo ko fay loo xam ne mhm. extérieur la jógee loolu lay jënd tey jii boo ko newoon benn sac fii trente mille trente cinq mille danaan la yow xanaa li jógewul fii xanaa nekkul fii lañ ko <laughs> defaree xanaa nekkul fii lañ ko defaree man loolu moom ma gën a métti da ngay ñëw defar sa benn affaire bu xool nga jël si sa naane defar finition yi lépp nice mais boo waxee bu bu ne laa yow yow yow saag bi yow foo ko jëlee ñu nga nga ne nga ne maa ko defar mm-hmm. boo leen waxee prix yow comme ñoom dañ naan ah mm-hmm. yow saag bi yow fii nga ko defaree xanaa yow jëndoo matériel nangam sangam mm-hmm. rek kii dañ la koy tuutalal fekk loolu ko affaire bi moom jàppalante la rek jàppalante la bi moom mu ngi mu ngi day rey artisan yi te tamit ma incité waale si mhm. kii nu mu matériel yi ñi ñuy mhm. jaay matériel mhm. ñooñu war nañoo wàññi li ñuy def parce que affaire yi ñoom dañuy yokk xool comme pas possible mën nga ñëw jënd benn affaire tey wala chaque yow da ngay dem ñëwaat ñu ne la yokk nañ ko nga jënd luy jar cent franc nga ñëwaat ñu ne la cent cinquante lay jar nga jënd luy jar deux cent nga ñëw ñu ne la trois cent lay jar loolu loolu ñun ñun ñi ñu commande mën nga encaissé benn commande boo xamante ni ah yow si diggante bi rek. Mhm. matériel yi yokku na. Mhm. fekk yow commande bi li nga ko jëndee li nga ko jëlee arrangé wu la. au finish yow da ngay perte. da ngay perte mhm. wala nga jege ko. te loolu du baasu ñun. waaw ñu ngi ñaan daal ñoom ñi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy jaay matériel yi. ñu ñu ñu ñu xalaat quoi ah, jamono ji tamit lépp a yokk a yokk oui. Ah, ñoom ñoom ni ñu koy yokkee <laughs> affaire bi dafa garaaw quoi. bu fekkoon ñoom dañuy yokk sax ñu bàyyi ay trois mois quatre mois ñu ñu ñu ne affaire yi kat dafa kii parce que port affaire yi dafa të mhm. génn affaire yooyu noonu. Mhm. ñu yokk loolu mën nañ ko daaxoo. Mhm. mais yow da ngay yokk tey ginnaaw suba nga yokkaat cinq cent mille francs deux mille. loolu lool loolu. yokk bi par jour la. par jour la ñuy yokk. <laughs> léegi bu ñu ci sa liggéey yow si yow sa liggéey euh, naka la ak ak clients yi ndax euh, da ngay euh, defar loo bu bëri. teg exposé de benn plateforme su mel ne euh, page wala affaire yooyu xam ñu jël kii. ak jëlaat bokk mi si ligne bi. allo Rewmi FM salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo. waaw soxna si. ça va. ça bien noo tudd. Odile. Odile. foo ñuy woowee Odile. maa ngi bëggoon a participer témoigner. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. waaw ñu ngi lay déglu di rafetlu émission bi bu baax. Mm-hmm. Euh, Rasoul moom liggéey mu rafet na. Uh-huh. baax na. Uh-huh. qualité lay defar. Mm-hmm. instant yi la leen def nii day jàppale jeunes entrepreneurs yi. Mm-hmm. ñu gën a mun nekk opérationnel ci marché bi. am na solo. waaw instant yi moom di ko encouragé. di ko félicité ci liggéey bi muy def. parce que yombul. yombul moom. mais daal mu ngi ci dóor waaram di gis boppam. Mhm. donc di encouragé ñëpp ñoo xamante ne ñoo ngi déglu émission bi. Mhm. mu joxe numéro ñu ñëw di jël commande fii nii. parce que la qualité. Mhm. coût bi. c'est bon télé tamit c'est bon. d'accord merci beaucoup Odile ci témoignage yooyu liggéey bu baax rek am solo ah, euh, parce que nga liggéey nit ki xolam sedd loolu hmm. rek dara la hmm. euh, te en marketing nee un client satisfait en euh, on parle au moins euh, trois personnes alors que client euh, quand il n'est pas satisfait dix personnes la koy wax hmm. tey bu ma ñëwoon ci rasul ne ko jaay ma saak tey bu ma jaayee saak bu bon Euh, dinaa ko wax au moins mhm. dix personne parce que sac ba day cher ba dafa may naqari ku ma gis dinaa ko wax <laughs> du coup yow réputation bi ngay am dootul baax alors ko tey su ma kontaanoon gis ku bëgg saak dinaa ko wax nii dama koy recommander ne ko demal ci rasul nga jënd mhm. Mhm. donc témoignage yi am na solo mooy wane ni rasul euh, yaa ngi ci yoon bu baax bii liggéey bi ngay def vraiment am na solo am na ko sànq au lieu ngay dem di jël gaal gi di dem di jees yoon bi di mm. dem xamoo looy fekk extérieur liggéey am na fii Sénégal mm. euh, talan yaa ngi fii vraiment xale yaa ngi fii di jéemal seen bopp di jéem a ñafe di entreprendre di mënal seen bopp mm. euh, donc lu ci def rek mooy ñu épaule leen jàppal leen ba ñëpp mën a xam seen liggéey euh, ngir liggéey bi gën a mën a mucc ayib daal voilà si bu mel ne am na fu moo tolloon di ko laaj wàllu saa yi ndax day def comme comme ni ñuy def rek defar loo bu bëri ñëw teg Euh, exposé wala boo da ngay xaar juste nit ñëw ne la ah man de damaa bëgg li ngay faral ma lii nga song nga song ma la kii euh, allo salaamaaleykum salaam waaw euh, sëñ bi na ngeen def ñu ngi sant tur bi naka la ak foo ñu wooyee maa